na loo xam ni boo ko xasee ba xam xamit na mu deme doo ko yalwaan waaw loo tax yonent bi xaarul sunu boroom di ko ñàkk yàlla riire fa mu riire rekk ni ko alam yajidka yatiman fa awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى مجاح نيكو بوكي نك ورون تخنغ سانكو ما جل سما ريسبونسابيليتي فك لا فما لا فك def la la ma la def jox la it la ma la jox waaw ba mu ca jóge mu laaj ko laaju tahqiq alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك نيكوا نعم. جحل جحل يدان نيوتي دنو نيت با جحل يا خاتلكو fexe naa ba firi sa dënn ba jaaxle jaaxle yaa amatu ca waaw yéen yi daan jàpp gannaawu nit ba siggi di ko tëg waaw sunu boroom ni ko fexe naa ba yen ya teggil naa la ko ñu ko bu ñetteel bi nag moo di jaratul ngay sonn pour ñu xam yaay kan ndax rafaana laka dikrak waaw ah mu jeex mu xam ni lu muy wuteeti amul yàlla jox na ko yim ko waroon a jox yépp waaye itam ku ñu jox lu tollu noonu ci sa biiri bokk te ñoom amuñu ko sa jàmm jeex na loolu moo taxoon sunu boroom xam lu mel noonu moo tax nanguwul woon yonent bi yaroo ci kër yaayam ndax bët yi koy seet waaw te mu xam liñ koy doy bi ci des itam fekk na booba lu ñoo tudde teeru bi yàqu yàqu bu nga xam ni xale yaro fa wor motax tax mu ne nañ ko yóbbu ci kaw ka fa nga xamni yaqo yàqoogul ñu jox ko halimatu sa'di bi mu démé bay jëm ci mag ñom halima dañ dañ jaxlé sax ndax lolu ci xale bu demagul fenn xabaabi shahrayni fi ljiimi alqiyaamu wa fi daalin gada mumsika aljudraani ذا هممي waral loolu Maodo nee na yonent bi bi ma amee ñaari weer la commencé di raam bi mu amee ñetti weer la commencé di taxaw bi mu amee ñeenti weer la commencé di jàppandu ci mur yi ak yi tëje waaw xadaa mumsikal judrani za himami am jom gu tey ni lu mu bëgg a yóotu boo ko ko bëggee jëlal mu lànk ndax am jom rek bëgg moo koy yóotul boppam ba karab mu koy jot kon foofu mu commencé la xam kii fi mu jëm fan la waaye bi mu demee ba mission bi commencé nag ñi ci biti mayuñu ko jàmm waaye ñi ci biir it mayuñu ko jàmm waaye mu am yitteem rekk te déglu boroomam mi nga xam ni moo ko yónni mu demee ba xelam bëgg a jaxasoo rek yàlla wàcce aay wax ak moom léeg-léeg daan na dem ba bëgg a salit waaye it yàlla du noppi فاصبر لحكم ربك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ديكو وحني كل سبر مدرك كل ممتي متي منكو لمولينيان ñaamul pas-pas bañ la déstabiliser mu xam lool mu toogati waxuma ñi ci biti waaye ñi bokk ci entourage ñi ci biti xalaat mel ni dañ koy saboté di ko sànni ay baat waaw ko defee mu mel ni dafay xaw a am lu ko naqari yàlla it di dellu si rekk di ko calmer di ko wax inna kafaynaaka almustahziin ñiy sabote bàyyi yi ak ñoom